jiital ci nuyoo bi ak siyaar yi Cheikh Mouhamadoul Mountakha al xalifatul am lil muridin ayyadahu llahu wa nasara di ñaan yàlla suñu borom jàngal ko ko e sax ni kàddu yi na ñàkk ci ñun ndax suñu tuddee guddi ga Cheikh Mouhamadoul Amin Cheikh Mouhamadoul Moustapha bi xam ni mooy jëwriñ Cheikh Mouhamadou Bara yawal ñu ñu ñëw fekk fi suñu mag Serigne Cheikh Mbacke Serigne Aliou mu yëkkati fi kàddu yu am solo yi fi yëkkati mën naa wax ni yooyu doyoon eh, wante Serigne Mouhamadou Mahfouz ñuy andi nuyooy Cheikh Mouhamadou Moustapha di ko teg ci sa loxo yow ak njabootu suñu maam soxna Maymuna bintu Xaadimu Rasuul di ñaan yàlla suñu borom yokk leeram te taasu ci barkeem waaye di fàttalikuwaale itam suñu yaay soxna Bali Mbàkke nga xam ni ginnaaw soxna Maymuna kenn mënutul leen xalaat te fàttalikoo ko mu nekkoon ku baax ku yaatu ku bëggoon nit koo xam ni yokk na lu bari ci ginnaawu soxna si moom ñu koy ñaanal yàlla suñu borom yokk ay leeram ci barke Cheikh Khadim nuyu sëriñ Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ni dangaa xool liggéey bi ci loxoom mu ànd ko say doom ànd ko njaboot yépp ñu leen di nuyu di nuyu mboolem kilifa yi fi fekk yépp eh, Serigne Moustapha nag yebal ñu ñu une délégation boo xam ni bu sañoon tey kër Cheikh moo leen kenn fa des wante xam ngeen ni ñu bari dañoo yemoon njëy saam xaw a dal koor lu ci mën di am yebal une forte délégation boo xam ni Serigne Cheikh Bara mu Serigne Karim imaamu buy bind moo jiite délégation bi mi bàyyi ko tubaab bu bind ci sëriñ Cheikh Mouhamadou Moustapha bi nga xam ni mooy jëwriñi Cheikh Mouhamadou Habib ngir ñëw ci bis bi nga xam ni dangeen da baaxoo ak bu nekk ngeen jagleel ko kenn ci jabootu Cheikh Cheikhul Khadim ren ngeen jagleel ko Cheikh Mouhamadou Amine ibnu Khadim Rasoul mu nekk loo xam ni lu rëy la ci moom rëy lool ci njaboot bi ba tax na bi nga yónnee Serigne Cheikh Abdoul mu ñëw waxtaan moom wax ko ko bërki démb bi ñu defal soxna Aminata lu fàttali ko muy bisu bi dafa wax foofu ni bu sañan ñëpp ñëw ci ba bis bi tolloo ak borom waaye Cheikh Mamadou Mahfouz sëriñ bi ak ci mbégte lool ndax yu bis yu mel nii dafay dundal ak mbokk silatu rahim la te daf koy defar ndax am naa yaakaar bu baax ni tey gis nañ fi ñoo xam ni bu dul woon bis bii duñ leen gis mbaa boobu yomb kon mu nekk lu rëy moom loo xam ne bu sañoon lépp lu ñu fiy def moom lu mu loolu gërëm ci ndax ku nekk xam na ni laylatul xadar cëru soxna may muna la bintu xaatimu rasul boo xam ne Cheikhul Xadim moo ko jagleel te laylatul xadar yàlla li mu wax ci soir bi eh, te eh, sa doom Baye Cheikh Awa Balla waxtaane ko ak Serigne Ahmadou Makhtar mu Alaaji Maam Thierno loolu wax dëgg yàlla doy na sëkk tamit jàpp ñu waxtaanee ndono li nga xam ni mooy alhuda ak njub ndax yonent bi fu ma sa jaar sooy ñaan yàlla njaboot li nga koy ñaan mooy doom joo xam ni dafay doon lu am nubuwa te nubuwa gi mooy njub gi ak xam-xam bi Laylatul Qadr nekk benn guddi boo xam ni dafa bari yu ci xew suñu borom wax ñu ko ci saaru laylatul xadar xayrun min alfi shahrin tanazzalul malaika malaikatu war ruuxu fiiha bi idni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xataa matal fajri mu am yenn yëpp yu ci nekk yoo xam ne suñu borom moo ñu ko jàngal moo di moo gën junniy weer tiyaar bi ci nekk moo gën nga jaamu yàlla suñu borom junniy weer mu ne laylu xadar boobu ci la wàcce alquranul karim mu ne malaayika yi dañ ciy wàcc ba asamaan benn bi wàcc suuf si di saafoonte jaamu yàlla suñu borom yi di leen ñaanal xéewal ba fajar jot te sayyidina Jibril alayhi salaatu wa salaam day ànd ci mbooloo ci kon loolu dañuy dégg ni malaayika yi ba léegi dañuy wàcc di saafoonte jaamu yàlla suñu borom yi kon bu guddi gi ñëwee lu nit jàppoon war nga ko bàyyi fanaane koo dundal ci jaamu yàlla ak jàng alquran karim ba fajar jot ndax nga mën a saamoon rek malaayika yi yërmaane yooyu malaayika yi nag dañuy ñëw mën nañoo ñëw indi melokaanu kenn nga jàpp ni kii koo xam la fekk malaayika la kon guddi gu toll noonu sëñ Maodo Mahfouz ñu ngi wëlbatikuwaat di am mbégte di sant bu baax ci cëral bi nga xam ni cëral ngeen bu Cheikh Mouhamed Alioune Bara te yi ko waral bari na lool waaye xam nañu ni di sonn guddi na ba ñetti waxtu weesu na incha allah li ci des yëpp bu ñu àggee ci bis bi incha allah sëñ Bara Abdou Lahad dina ñëw fii wax ko waaye ñu ngi sant ñu ngi gërëm euh, ñëpp rawatina mbokk yi nga xam ni dañoo bàyyi itti yi ñëw fii di ñaan rek suñu borom lépp luñ fi def mu àggale ci ruux soxna may mun a ak ñi fi fekk ñëpp war a def ci suñu bay am sallallahu alayhi wa sallam ci turu sama bopp Sëriñ Bara ñu ngi lay nuyu di la dalal yaag mboolem su bokki te di ñaan yëpp te Sëriñ Cheikh Thioro li mel ni jotaay bi guddi na ko jël ma ci jaaraat damay aw rek nga xam ne aw ci aw la ñu ndax benn la di sëriñ bi di am mbégte ci di leen fii ci guddi yi nga xam ne dañ ko tuddee Cheikh Mawlana te ñu tudde woon ko Cheikh Mawlana woon ko sëriñ Farilu tudde woon ko sëriñ Abdou Lahad ren ñu ko sëriñ Bara loolu nag li mu ci jublu mooy yaatal ak jokk ak bokk ak rafetal ak kenn ku nekk ci bi nga xam ne moom la la yàlla jox mu nangul la ko fas fas la ko yónnee delloo moom ma sëkk ndax conférence yi nga xam ne ñu ngi koy def benn bu ci nekk dañ koy tànn am ñu ñu ko jagleel ci njabootu Sëriñ Tuubaa ren nag suñu borom baax nañu ba mu tànn ki nga xam ne moo di Sëriñ Bara loolu nag foog naa ne xéewal bu rëy la ci mbooleem mbokkitaay bi muy ñun ñu koy def ak ñi nga xam ne ñu ngi topp waxtaan bi ndax kii di Sëriñ Bara bi mooy ki nga xam ne doomu Sëriñ Tuubaa ji tey ci ku mu tedd bi ëndaal yi gërëm ba sëriñ yi gërëm mag yi nga xam ne ñoo ko ci moom ëndaal yi ak wilaay yi ku ma sëkk sëriñ bi ci boppam ci bataaxal bu jaar ci soxna Fatou ne ko di nga am ndey maqaama yoo xam ne mbooleem say kem daañu la ci daañu la ci kon ku day noonu ba sëriñ Tuubaa wax waxi tool boobu ci moom dem baag ci ñoom képp ku yow sax te ne texe te kenn du ko kon day mel ne moom mooy rabu mboole mur ndax képp ku di mur ànd nga ak suñu baax kon nag lii sëriñ Bara xéewal la bu rëy rëy rëy ci ñun di barkeelu boo xam ne sëriñ bi baaxe na ko mboolem mbokki talib yépp di xam ne itam bii nga xam ne def na ko leen ji dañ koy wéyal ci yeneen njabootu sëriñ bi ci at yi nga xam ne mu di ñëw di sant itam ki nga xam ne moo di sëriñ xam ne ndax moom day léegi xam naa ko ëpp fukki at jataay bi at mu nekk moo ñu ñoo koy bokk te waxtu bu dikkee thème buñ fi jël buñ ko waxtaanee ba noppi bu del see dana xam moo xam ne dafa yaatu ba ñëpp danañ ci mën a jariñu mu ren na tey jii fu sore sore la jógee dikk ngir jëmli bis bi kon sëriñ Cheikh xam nañ si yitte ci kër gi waaye loolu ñun ñu fekkoon démb bu ñu bett ndax sa maam dafa nekkoon sa xarit xam naa ne yaa doxoon diggam mooy seen Aliou ak diggam seen Aliou ak seen Saliou ak seen kanam sa yàggul kon boo defee lii loolu day wane rek sa sàmm coloré ak jàpp boo xamante ne jàpp nga ko njabootu soxna si kon ñu ngi lay sant di la gërëm ci coono yi nga xam ne yaa ngi koy toggoo saa su nekk. ba waxtu boo xamante ne bii léegi bi ñëw na nga ànd ko ak ñun ba yi tam comme jataay bi day mel ci jataay yi day bokk ci wàllu conférence yi di sant itam presse bi ci seen taxawaay bu rafet ndax tey lépp loo xam ne wax nañ ko fi rek yéen koy jàllale ba foog naa ne waxtaan ak dina foo xam ne tey jii ci ak kawe loolu def ngeen ci seen loxo kon yéen tam na leen xam ni ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm di sant di sant itam bu baax nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yore comité scientifique ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko te Baye Cheikh ñu jiite leen bokk na ca Serigne Cheikh Naam Simour Ami ak soxna May Mor Fat Xari bokk na ca Serigne Mamour Amdi Serigne Mourtala Bousso Serigne Moustapha Mbacké ak ñoom ñëpp rek bàyyi ñu kenn li ma toog nii du ma mën a teewlu tuuti kenn ku nekk waaye daal ñu ngi leen sant di leen gërëm li nga xam ne moom ci gën a yitteel mooy fexe ba lépp luñ ci waxtaanee rek ñu tënk ko ba du réer ndax itam ay borom xam-xam ñoo koy def di ci gëstu ay waxtu yu bari kon loolu dañu war a fexe ba di ko man di tëy di ko man di garder te foog naa itam loolu ci conférence bi dégg ngeen ni nekkat bokk na ci li nga xam ne mooy sàmm na li loolu moo di fexe ba di ko pérenniser loolu nag matuwaay ci jël mooy tër yi nga xam ne ñu ngi koy bind ci li nga xam ne moom lañ fi rote ci xam-xam waaye même nag àgg na ci créé benn chaîne YouTube boo xam ne bépp conférence boo xam ne mos a koo def waxtaan bi mos a def ci les grandes conférences yu nekk xadal commencé nañ ko ci dugal te bala ñoo bàyyi lépp lu ci mos a waxtaanee tàmbali ba nëgë ni ba ba at tukki ku fa dugg di ko mën a gis. kon loolu lépp rek mu nekk li nga xamante ni bii xaj na sunu participation la ci liggéey bu nga xam ne liggéey la bopp ñëpp ñoo ko war a seq kenn ku nekk war cee def loxoom ñu mën a téye sëriñ bi li nga xam ne moom lañu fi bàyyeel ñu ñu mën a yee ndaw mën leen a jàngal ba ñu mën a taxaw taxaw bi nga xamante ni bii taxaw ñu ko sëkkalee doon taxaw bi nga xamante ni bii mooy taxaw bi ñu war a taxaw muy taxawu yoon bi taxawu sëriñ bi taxawu diine ji ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.